ndaje gi li ko sabab rek mooy waajal jongante yi maanaam waajal nawetaan ci zone bi ñu am nii ndax euh, ndax nit mënoo organiser dara bokkoo di daje bokkoo di sottante xalaat donc loolu waroon tey jii ñu daje gën a waxtaan ak ASC e yi gën a waxtaan ak ak délégué yi ci naka la ñu mën a doxalee ren ci wàllu nawetaan bi naka la ñu war a mën a doxalee ren ci phase nationale yi ñuy waajal ak xam ne Eh, am na ASC ñu war a teewal foofu Antoine. <laughs> Eh, boo waxee daaw ren am na eh, est-ce que mën nañu defal benn bilan bu ndaw ci parcours daaw. waaw daaw xam nga ndaje xale nekkul lu yomb maanaam ndaje football nekkul lu yomb yomb mooy lan financièrement xam ne day xaw a métti ndax lu mel noonu yëpp nga mën ko engagé football nañu daaw ba final en senior diggante ASC Baye Gaynde ak ASC ASC. Xelkom bu Sange ASC Baye Gaynde nag gagné ko ci tapis vert donc aussi au niveau des cadets football nañu ba tabu demi-finale ñu tagandi foofu waaye nag bëgg nañu continuer lu mel noonu ren donc mu nekkoon saison boo xam ne euh, métti woon na mais mu nekkoon saison boo xam ne gis nañu football bu rafet gis nañu vraiment euh, mais ASC Kissan sont na national ASC Thialkoy dem na national vraiment une saison remplie malgré vraiment toutes les difficultés auxquelles on a fait face. <laughs> Euh, am ngeen une zone bi ngeen ubbi euh, du côté de notre Diobass euh, zone bobu numu mu nar est-ce que ren dina compétir. waaw ginnaaw bi ñu dajee yenn ASC qui yu bari bari, nekk fofu de passage je ngi remercier le président Adama Faye de l'ASC Jack.

Euh, loolu rek mom moy suñu mébét loolu moy esprit ongam de renouveau. <laughs> ongam de renouveau euh, ren bu fekkente ne ñaari zone ñoo am fi kon dina am euh, bureau bo xamantene mom moy moo gérer nar a département voilà donc dinañu installer par exemple l'ODEGAM moy organisme départemental bi dinañ ko organiser dinañ ko installer ñu supérieur yi au niveau national dinañ fi jaar installer ko lu mel noonu donc ren ongam day organiser ay phase nationale am vu qu'on a deux zones donc deux zones yoyu, naka lañ ko organiser nak, ci ndaje dinañu gën a leeral lu mel nonu, donc loolu aussi que les ASC hamne, ren au au delà de la compétition zonale dina am compétition départementale bo hamne, ne ñaari zone yoyu ñoom ñoo koy seq. ñu dellu si ci zone pax niar ñaata ASC nga yaakaar ne ren dinañu mën a compétir. bon ñu ngi jàpp ne ne daaw compétir nañu avec dix ASC ren yaakaar na ne bu amul dix ASC yi la dem du bëri.

pour pour avec les la finale cadette. Mhm. donc loolu moom mooy ne l'hilaire leer sur le papier moi ASC Baye au niveau des seniors dina dem phase nationale mais président eh, am li fi eh, gane et eh, yi fi nga xamante ne zone qui ñëw création benn zone. bu bees euh, ODCAV euh, ñu gisoon ne am nga say naataango yi nga xamante ne yéen a bokkoon combat bi ñoom ñu dem euh, ñu bàyyi la ci zone bi loo ko jàngatee. waaw man de man de man dama ne moom association liberté d' association bi may wax rek loolu la rek yaakaar naa ne ku ci nekk am nga droit dem bokk yi foo xam ne fa nga yaakaar ne moom moo gën ci yow loolu damay ñaanal ñoo ñëpp ñoom suñu naataango la ñu si may bokk am di jàmm la ñu kontaan naa si sama relation ak ñoom yaakaar naa ne benn animosité amu ci te du ca am incha allah. donc loolu aussi dama koy jàppee ne rek sur la liberté d' association looloo tax ñoom ñu dem mais di la ñaanal yàlla aussi seen mission boobu ñu réussir ko rek ndax loolu c' pour loo xam ne nii bonheuru Jobaas la Euh, te ça sera au profit des de la jeunesse diobasoise man man ni may gis man ñi Pierre damaa gëm liberté bu mel noonu bu ñu sañoon nag ñu toog ñun mais nag loolu amul benn jafe-jafe. Mhm. ban message ngay lancé. waaw di ñaan rek euh, football bi moom mu gën a avancé dinaa autorités yi vraiment di leen remercier les autorités municipales vraiment daaw gis nañu ne taxaw ñu ne la zone que ça soit au niveau de la subvention que ça soit équipe bi ñu accompagner au phase nationale. au retour aussi gis nañu ne ñuy jappalé ci final bi di leen santat di leen gërëm donc lu mel non vraiment amuñu amuñu seen fay le maire à travers aussi son cabinet Ousseynou Cissé Aliou Niang donc Ibrahima Thiandoum ñom ñep ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di gërëm et les matchs et autres choses di leen nan aussi ñu ngi leen talalat loxo nañ ko defoon daw ah ñu gën ko yok rek lu mel non parce que lolu euh jeunesse jobas mo moo ciy gën am ndam ñom aussi ñoo ciy gëna am ndam yalla may leen aussi ñu réussir cette mission lépp lu ñu nam ci jeunesse su Jobaas ñu yàlla may leen ko ak travers tous les domaines rawatina aussi football bi li ñuy soxal rek mooy doomu Jobaas tey jii ñu convoqué équipe nationale wala mu am club boo xam ne ni tey jii dina fa football ñu am ay Sadio Mané ñu am Ismaïla Sarr ay Elimane Ndiaye yu dul jeex donc aussi ñu ñaan yëpp lépp mu am ci jàmm sans la violence lépp mu am ci njekk ak teraa nga xam ne ñun ñëpp a bokk ndax bu ñaawee rek dana la am loo xam ne dina am ramification xam ne bëggewuñ ko foofu football moo ñu boole donc seetaan ci football sañse dem stade ñëw encouragé xale yi ku ci am victoire ñu naan la félicitation ku ci am défaite ñu naan la ah du courage prochainement dina baax lool rek moom mooy sama ndam nan sama crédo loolu la rek. loolu aussi kontaan ci ñëpp santaat la aussi yow mii waa presse bi ak Ousmane Ngom vraiment sant nañ leen bu baax a baax a baax a baax jërëjëf.